salaamaaleykum mbokk internet yéen safoo san seen RTT TV gis ngeen ñu ngi fii nga xam ne moom mooy Thialy ku ne Thialy wax fi nga xam ne moom mooy international sénégalais bi nga xam ne mooy Souleymane Basse donc jël li nga xam ne moom mooy trophée u bi doon défenseur ci nga xam ne moom mooy petite catégorie bi nga xam ne mooy Sénégal tey RTT TV ak toute l' équipe ñëw fi nga xam ne moom mooy feefam maanaam Thialy pour recueillir information xool ñi nga xam ne la ñuy dundee li nga moom mooy victoire bi donc ci kanam tuuti bés bi wàcce nañ ko kaamin ñaanal nañ ko mbokk yi ànd jàmm yi ñëpp ñëw nañu donc raison pour laquelle la TT TV c'est euh, donc mobiliser et toute l'équipe ñoom xooli réaction yi daal di ñëwaat. <laughs> waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu geste bi ngeen def ñëw fii ci Aly tey. ci victoire bi nga xam ne victoire u Sénégal la euh, rawatina nag euh, suñu doom bi ñuy wax Souleymane Bass dëkk ci euh, dëkk Thiès dëkk Thiali. waaw man may bàjjanu Pape Souleymane Bass man maay magu papay Souleymane Bass Souleymane Bass ñu tudde ko suñu papa waaw mu ñëw rek jël tànku maamam jël tànku papaam jël tànku yaayam am jom am fula ci boppam jiital ci nag yar. parce que ñun ñi ci biir kër gi nee nañu li mu mat ci ki ko li mu saf ki ko mat ci moo ko xam kon ñun ñi mu bokkal kër gi ndegam ñoo wax ci moom mbaaxam ñi ci biti wax ko kon boog baax du weesu baax waaw. waaw comme rek comme yeneen xale yi di fooye bal bi yenn saa yi nga daw jàng fii nekk ci bal bi xam nga rek day ñëw xam nga ni tubaab di wax ne l'appétit vient en mangeant. léegi virus bi commencé di ko dugg fi mu ne nii waa kër gi macha allah ñoom ñëpp ay football ñoom ñëpp. frère am yëpp ñu ngi ci football bi léegi waaw dafa nekk lu mu bëgg gëm ko euh, yàlla réaliser rêve am ñun ñëpp ñu bëgg ci kontaan ci euh, euh, mën nañu wax lu bëri ci moom Souleymane bëgg na xale du jooyloo xale mosul am ku ñëw ne dóor na sama doom wala lii dëkkandoo yaa ñu fi lu mu am da koy partagé lu mu am lu mu tuuti tuuti da koy partagé nekkul ci yëfu jàmbur aussi du dugg yëfu jàmbur. waaw ku calme la ku posé la ku am fulla ci li muy def waaw loolu daal laa mën a wax ci moom am ambition loolu nag ay ambition am na ko macha allah waaw. moo tàggatoo bi. mooy yàlla na yàlla def jàmm defal ko Sénégal defal ko àddina yëpp defal ko itamit euh, képp ko xam ne yaa ngi football rek yàlla yëkkati la yokk la ba nga yëg ko parce que football mooy boole ñu xulloo mu jubale leen mooy boole ñoo xam ne mësuñu am affinité. mais dañuy jékki-jékki rek bu ñu doolee bii rek ñëpp tëg laxasoo waaw loolu football rek moo ko mën ak làmb ji waaw. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. asalaamaaleykum man la Mouhamadou Georges Bass Pape Souleymane Bass bon juddoo mais yàlla def rek bon ma teel fee jóge woon nekk si. mbirum armée depuis à l'âge de vingt et un ans bon ba def fa vingt six ans d' armée après si laa ñibbisiwaat rek ñëw toog si kër gi fii mais fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee papa Souley mooy sama taaw. bon xale la bu nga xam ne ni bu yaru bu jox ñëpp cër bu amul benn problème daal il est trop discret mais xale la bu yaru jox cër nit yi bañ na ko ba du doo ko gis yenn détails yi. bon aussi tamit euh, xale bu yaru la daal waaw qualification yi ngay mën a jox si moom daal il est discipliné respecté na ñëpp doo ko dégg si coow mosoo ko dégg si histoire mosoo ko dégg si jàppal bàyyil bon xale bu correct la aussi tamit bon macha allah daal. bon contentement bi amul fu mu yem parce que déjà fu mu nekk nii dañoo doon dégg équipe nationale nu fay dégg yenn sant yi. bon tey jii ñun bu ñu demee ba am doom bu nga xam ne ni tey moo ngi ñëw toog jël sunu tur sunu sant yóbbu ko fu nga xam ne ni tey jii fu mu nekk nii du ma wax ne Afrique bi damay wax monde bu yëpp xam na nañu ne léegi base am na si famille bon boog loolu c'est une grande fierté d'autant plus que aussi tamit man mu nga xam ne ni bon dama gëm Sénégal. pendant vingt six ans ma joxe sama lépp ci Sénégal di ko défendre di défendre la drapeau du Sénégal tey jii bu ma demee ba am doom bu nga xam ne ni moo ngi taxaw di défendre ce drapeau la bon loolu fierté rek la may mun a jox quoi bon il moo ngi jël relève bi daal c'est macha allah c'était pas sa première euh, médaille parce que am na fi médaille champion du Sénégal am na fi médaille fois ba ak médaille bi di doog dikk di ko ñaanal rek yàlla may ko fan bu gudd aar ko sàmm ko ba yeneen i ak coupe du monde bu yàlla indi ko fi si jàmm ak salaam. waaw di ko ñaanal aussi tamit ak ay moromam ñu nga xam ne ni noo nekkoon si ay di défendre les couleurs de la nation yàlla aar leen sàmm leen ba lépp lu nuy wuti ji yàlla yombalal leen ko. waaw bon accueil de la fin bi ban remerciement laa mun a am parce que kontaan naa bon Thiès surtout Thiali sigil nan ma parce que déjà fu mu nekk nii man miy baayam def vingt six ans d'armée musuma am accueil bu toll nii bon boog sama doom bu demee ba am accueil bu toll nii population Thiali population Thiès rendre ko ko ah bon fu mu nekk nii bon fierté la daal waaw fierté na la waa Thiali waa Thiès maa ngi leen di gërëm di leen sant dégg wax na ne action bu nu def nii action bu ma touché la parce que gis naa soutien bu ñëpp am actuellement fu mu nekk nii lépp lu baax lu nga xam ne ni noo ngi wax ci xale bi lépp lu nga xam ne ni xale bi jaral na leen lu déplacé wu awma seen fay maa ngi leen di sant di leen gërëm. salaamaaleykum salaamaaleykum dëkkandoo yi maa ngi ñaanal ñëpp di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn bopp ba suuf di ñaanal maama mi ci kër gi eh, di santaat yàlla bu baax rek julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam lii moom lii la nit doon ñaan yàlla. dañuy sant yàlla rek ndax wax dëgg yàlla doom joo xamee ne doom ju amul benn problème ku bëgg ñëpp bàyyiwul kenn nag ma di ko ñaanal ci yàlla lépp lu mu sumb yàlla na ko ko sunu borom bi eggaleel mayoom bi nga xamee ne moom la bëgg yàlla na ko ko sunu borom bi ràppale ba mu ràpp ba lim ci yaakaar ak li ci ñëpp bëgg mu defal ko ko di ko ñaanal yàlla nag yàlla lafal ko cat cat seexlu ko ba fi mu bëgg egg suñu borom bi eggale ko maa ngi ñaanal dëkkandoo yi dañoo bàyyi seen itte bàyyi seen lépp ñëw toog depuis boobu ba samedi ba coupe bi amee ba tey tooguñu taxawuñu ñi ngi ñëw di defar di di defar ndax lii moom nañ nañ sant yàlla rek waaw ndaxte nit ku bàyyi këram ñëw kooku mënoo koo fay ndaxte jot amut waaye ñëpp ku ci nekk bàyyi nga sa lépp ñëw maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di ñaanal maamam jii nga xam ne ne jëkkëram lañ ko tuddee muy Souleymane Baas yàlla na tur bi wuyu boroom yàlla na jël juróom-ñaar jikko yi jël na ko sax ndaxte nit ku maandu la nit du duggul ci loo xamee ne lu luus la duggul ci loo xamee ne ne ah ba mu nekk na xale ba nu mu nekkee mag musuma ko ñu musuñu koo dégg ne ko papa moo def lii wala moo wax lii ñu ciy sant yàlla bu baax di ñaanal waa télévision bi seen lii yàlla na toog ba ngeen ba ba mu sut seen njort ba li ngeen ci bëgg sunu borom bi defal leen ko di leen remercier di leen ñaanal yàlla lépp loo xam ne ne sumb ngeen ko yàlla ngeen ko daan ci barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi di leen remercier jërëjëf yàlla na leen yàlla fay. asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu ci seen sant si leen ak si seen sant ah Paa moom xale bu baax la ndax Paa bëgg na ma yaayam bëgg na ma papaam bëgg na ma li muy jublu nag yal na ko ci yàlla defal ndam ndax lii ñun ñëpp man mii sax daawuma seetaan match waaye fan yi yëpp damay toog di seetaan match ndax xale bi mënul ñëw kër yaayam ak kër papaam man ci kër gi laa nekkoon mais dama fi yàlla daf ma fekk man ma ñibbiwaat suñu kër mais Pa Souleye mënul ñëw ci kër gi te ñëwul ci man toujours bu egsee ci biir kër gi ak yaa ci kër yaayam day ñëw ci man dañuy waxtaan dama koy ñaanal yàlla nag lii mu sumb yàlla nag ko yàlla jàppale yéegari ko ca kaw a kaw a kaw ba li mu mën eh, ren yàlla na ko eh, mën ren yàlla na ko mën déewén yàlla na ko yàlla lafal cat li mu bëgg ci xolam daal moom moo ko xam yal na ko ko yàlla jàppale man wax ci kii mënuma ko waaye nag <laughs> il faut ma sànni ci tuuti kàddu. waaw munu cee ñàkk man damay ñaanal Souleye xaritu Adama njaay bi muy dem nii di dem dafa ñëw da ko indi ba ca kër ga mu ne dama bëgg nga ñaanal sama xarit bii day dem football bali ma ne ko fa ñuy dégg fa ñuy dégg Sadio Mané yàlla nañ la fa dégg. andi na ko ba ca kër ga ma ñaanal ko lii yal nañ jiglaayam yàlla nañ jiglaayam yal nañ ko dégg fa ñuy dégg Sadio Mané te mu raw ko fuuf te mu jig ko yal na ko yàlla musal ci cat musal ko ci làmmiñ musal ko ci balaa dégg nga maa ngi ñaan rek fi mu bëgg a yegg daal yàlla na ko fa yàlla yeggale xaritu aadama la benn lañ duñu ñaar andi na ko ba ca kër ga ma ñaanal ko ñaan gi nag yàlla na nangoo nangoo nangu yaasin yaayam ji ba ma koy xam xaw ma ne woon sax suñuy doom dana ànd muy ak maamam maa ngi ñaan rek fa mu ñu bëgg a yegg yal na leen fa yàlla yeggale. waaw salaamaaleykum man la Babacar Baas man maay rek papa yi Pape Souley Baas waaw lii nag moom mbégte la rek waaw lii lañ ko doon ñaanal boo gisee xale ngay jubanteeg yu mel noonu lii la rek ngir bu mu am ndam donte yow amul foo egg sax mais comme moom ci milieu football la nekk. te gis nañ football lu ci nekk loolu moom dool def lu dul ñaanal ko rek mu gën a góorgóorlu ak conseil yoo koy jox lii nga war a def lii nga war a moytu loolu lañu am ci moom mais nag li mu indi nii honneur la waaw honneur bu rëy rëy rëy rëy ci ñun waaw ci ci ñëpp sax mais rawatina famille baas vraiment kontaan lañ def waaw kontaan lañ def rawatina bés bii mu def nii di fàttaliku ñi nga xamante ne nii génn nañ àdduna waaw fàttaliku leen defal leen ay ñaan mais ñaan boobu yàlla na ko yàlla nangul yàlla yokk ko ba fu mu bëgg a egg mu egg fa loolu lañ ko souhaité kontaan nañ nag ci xam nga teewaayu ñëpp waaw ku lim da ngay juum mais ñëpp parce que ndam lii ñëpp a ko bokk ñëpp ko bokk Thiès ñëpp a ko bokk kon du ñu def lu dul ñaanal ko rek yàlla yokk ko fu mu bëgg a egg moo ko xam yàlla defal ko bañ koy dégg fu kawe kawe kawe kawe ko waaw loolu la amoon lu ñuy sànni ci kàddu waaw ñu jégalu ñëpp nag waaw di baalu àq ñëpp waaw mbégte la daal mbégte la. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu. alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla di gërëm yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu doom bii li mu indi fii di suñu doom di suñu sët ñu ngi sant yàlla bu baax mi ko yàlla may ndam sant rek di ñaanal sama mag yi nekk ci biir di faya di ya di maamam waaw Pa Souleymane Baas suñu papa ju baax moom lañ ko tuddee incha allah dina am lu baax ndax suñu papa jooju julli ak sellal bëgg njabootam yal na turu wuyu borom yal na ko yàlla lafal cat. waaw ñu nekk nag ak suñu bàjjanam yi ñoom Xadi Baas ñoom Awa Jóob ak Soxna Wàdd dara yàqu dara ñaawul waaw ñu xale yu baax lañu ñoom tam bëgg ma waaw ni ma seen yaay bëggee noonu lañ ma bëggee di ñaanal Ibrahima mi dem di magu pàppaam di ñaanal papaam ak ak yaayam mi ak bàjjanam mi ak mboolem julit yëpp ñi fi teew ci bés bu màgg bi yal na yàlla defar ñëpp ak ñi mu àndal ak ñi borom ndam ñoom ñëpp yal nañ ko muurloo ci kàttanu yàlla barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke weer barke Alxuraan yal na ko yàlla fal cat sant nañ leen gërëm leen ñaar ñoom sekk ñoom ñëpp waaw yal na yàlla defal jàmm ñoom Assane la waaw ñu ngi sant waa dëkkandoo yi yëpp bàyyi seen soxla ñëw ci suñu ndamu doom ji suñu ndamu sët bi yal na yàlla defal jàmm defal la ko yow mii defal ko mboolem jullit allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim waaw. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér bés bi ngeen ñëw nii ci suma turandoo jëkkër ji yal na ngeen gudd fa nag wér ak wér le yal na leen yàlla fay te lii ngeen tax ma ñëw nag na indi leneen ak leneen ak leneen yàlla yëkkati ko ba mu toll ni sootal ba ca Touba Souleymane Baas yal na turi wi borom ay bun daawuda noppi nga yaru nga baax nga bëgg nga ma daf may uuf rek moo picc di doomu Ibrahima Baas mi nekkoon seesaan dajee te gaañu ñoom ñëpp dañ maa bëgg su ma set yëpp a ma bëgg su ma set yëpp a ma bëgg ak seeni baay waaye yéen itam yàlla na kenn yàlla kenn kenn gënu leen rek yal leen yàlla fay may leen gudd fan ak wér ak wér le ak sutura si ngeen yéen a xam ne ngeen bëgg nag yal na leen ko yàlla defal ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf jërë ngeen auzu billaahi mina seytaani rajim gannaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñu fi toog ñëpp bon man nag maa ngi tudd Cheikh Sadibou Niang maa ngi dëkk fii Thiès cité Senghor laa dëkk bon tey dañu am benn mbégte ak kontaan moo tax ngi ñëw fii parce que man papa yi Souleymane Bass ñun ay classe lañ daan l'armée nga defandoo armée en 1988 lañ dem armée boobu ba léegi aussi yàlla dogoon na ba tey jii actuellement nii ñi ngi ndembe ñi ngi gisante saa su nekk di déggante saa su nekk donc si plaisir la tey jii tey ngi ñëw toog fii yandu ak suñu do yandu ak moom li ko waral aussi mooy suñu doom bi nga xam xamante wax dëgg yàlla dafa def jaaru bu rëy fële Égypte ba yàlla jox leen ndam li nga jël coupe bi indi ko Sénégal mu nekk vraiment fierté pour tout le Sénégal fiert aussi à nu aussi les Thiessois parce que tey jii suñu doom la tey bu demee ba nekk à l'équipe nationale ba indi coupe rek vraiment c'est une fierté pour tout le monde et surtout nous nga xam ne fi lañ dëkk Thiès ak ay ñun ay baayam lañ donc wax dëgg fa yàlla. ñun mënuñu dul di ko ñaanal rek dañ koy ñaanal ñaan boo xam ne amul fu mu commencé amul aussi fu mu jeexee wax dëgg fa yàlla dañ koy ñaanal mu dem ba lii lii lii mu am tey jii mu am lu ëpp loolu te yàlla dina ko def bu soobee yàlla parce que aussi boo nekkee ndaw nga am kilifa la def ko gëm ko say waajur kontaan si yow donc kon moom lu mu bëgg rek si àdduna yàlla dina ko defal donc dañ day ñaan yàlla na ko suñu borom bi lafal cat. ba fépp mu bëgg a àgg mu àgg fa vraiment kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf merci ok. bisimilah avant dara ñu ngi félicité Pape Souleye si victoire bi di ko félicité di ko ñaanal xam nga lii yàlla na ko jik te lii des na du lii rek liñ koy fasaale du lii dem ba signé ay poro am ay contrat ay contrat lañ koy ñaanal ndax moom xam nga jar na ñaanal booy bu yaru la barki sëñ Touba si koñ bu la nekk moom moroom mi ñoo toog nii si ginnaaw ay booy kóol lañu moom jox grand yëpp cër barke sëñ Tuuba xam nga dañu mënewul wax nag mais Souley moom li koy ñaanal la du lii ay signature contrat ay Real de Madrid ay Barcelone yooyu lañ koy ñaanal mook ay moroomam barke sëñ Tuuba yal na leen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp tout temps yi nekk caal yëpp di football ñoom Pa Moussa gaa yëpp Ousseynou ñëpp tout ñëpp ñu ngi leen di ñaanal barke sëñ Tuuba gis nga maillot bi nii moo ma ko jox numéro 6 bi lii la ñu am baay bu ñu solo suñu maillot booy suñu gan yan maillot la ñuy sol moo tax ñuy sol moyet xam nga booy jeune si dëkk si koñ bi di leen fasaale rek di leen ñaanal Souleymane moom li ñu koy ñaanal du lii barki sëñ Touba yàlla na ko borom bi gën a taxaw sàmm ko war na sëñ Touba jërëjëf waa xaar jox pap kii xaritam la xaritam bu baax a ngi nii bisimilah baay salaamaaleykum gaay maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen nuyu yéen ñëpp affaire bi ngeen def nii rafet na trop mais man nag sama si kaddu gaay laa koy sama ka kaddu copain yi quoi ndax man moom mënu ma waxee quoi ak gars yi tamit mënuñu wax moo tax ñu teg ma fii pour ma waxal leen ñoom ñëpp ak gars yi moom kontaan nañ ci lii yëpp ah Pastore moom suñu xarit la depuis xale ba léegi te moom lii moom mënuñ see ñàkk a wax quoi ndax buñ ko deful gore wuñ moo tax gars yi na ma naa jël kaddu wax quoi loolu moo tax ma jël kaddu mais nag ñun moom lu ñu koy wax moom moom xam na ko te lu ñuy mbébét si moom loolu lan yàlla na ko yàlla moo tali quoi ndax moom lu ñu koy ñaanal mooy lu mu séentu ak lu mu bëgg yàlla yegal ko foofu noonu incha allah te moom xam naa allah moom wóolu nañ ko te allah xam naa ne dina ko def te yàlla na yàlla mootali loolu yëpp te nag maa ngi maa ngi maa ngi nuyu ñu toog fii yëpp sama copain yeeg ñëpp mais dañoo mënul wax quoi moo tax ma jël kàddu bii di wax man mii sax mënu ma wax mais il fallait que def ko quoi ndax mu gën a rafet ndax luñ koy ñaanal ñëpp kontaan nañ fii caali ñëpp kontaan ñu luñ koy ñaanal rek muy gën a dem si kanam ndax yàlla na ko yàlla taxaw fépp ak fu mu mënta dem yàlla na ko yàlla dem am ah, merci beaucoup. maa ngi tudd Mame Fatou Bass sœur ci Paasulay euh, man ak moom ñoo màggandoo fii ñoo yaroondoo si biir kër gi waaw mu doon tamit sama mag bu baax ka nga xam ne lekkul dara bàyyi ma wax dëgg neex yàlla sama xarit fu mu ñëwee day ñëw ba kër ga seet si ma waaw tey nag lii nii mu am du chance mérite la daal parce nit ki ni nga mel rek mën naa ne moom say jëf da koy wane tey li mu am ne moroomam yi bari bëgg nañ am ko nekk fii comme mais lépp daal moom la daal waaw xol yi nag dafa fees ba mënuñu wax waaye franchement parler li nekk ci xol yëpp mënuñu koo génne Papa Souleye lekkul dara bàyyi kenn ba muy nekk Seneps génération foot lépp chaque jour lu mu am day ñëw bokk ak ay frère ak ay sœuram waaw waxuma dara sax mais yëg-yëg bi rek dafa neex laay man nag dafa sori si man dafa sori si man lool ma ko bëgg lool waaw te maa ngi koy ñaanal aussi lii ne mu doon ay trophée trophée mu dem ba romb sax Sadio Mané salaamaaleykum mbokk internet ak téléspectateur yi safoo san seen seen RTT TV gis ngeen ñu ngi fii ci Thialy nekk fi nga xam ni moom mooy euh, teeru bi nga xam ni mu ngi koy teeru ki nga xam ni moom mooy international sénégalais bi nga xam ni moom mooy Souleymane Basse évolué fi nga xam ni moom mooy U20 di international sénégalais tey ñu ñëwoon tey pour def ak moom benn interview dañu bàyyi lu dul bàyyi ko mu nuyoo jàmm sante suñu mbokk téléspectateur yi Souleymane na nga def. ah maa ngi fi maa leen di nuyu di nuyu waa télé bi. di leen remercier ci seen déplacement waaw leen nuyu ñoom ñëpp ok Souleymane balaa maa ñëw euh, li nga xam ni moom mooy sacre bi nga xam ni moom mooy U20 euh, mooy sacre international bi vraiment yi nga xam ni mooy peuple sénégalais bi di ko béggee donc damay ñëw ci li nga xam ni moom mooy sa parcours euh, ku si ne xam na ni aussi Souleymane Bass mi ngi fii nga caali donc dañuy ñëw sa parcours mooy dès le début fi nga xam ni moom mooy nawetaan bi donc bu ñu bëggoon xam en quelque sorte Souleymane Bass fu mu jaar donc ci petit parcours am ba mu egg fii nii tey lan ngay wax téléspectateurs yi. waaw man maa ngi commencé nawetaan cadet HLM Thiali après ci laa joué cadet dem joué senior ngalam après ci laa dem Seneps excellence joué fa championnat Ligue 2 nekk champion Ligue 2 après joué Ligue 1 année Covid bi après ci laa dem GF. balaa muy ñëw ci euh, génération foot ak Seneps tey jii euh, Souleymane Basse comme euh, rêve de gosse pour ñëp ñi nga xam ne ñoom ñooy œuvre fii Thiès pour football Souleymane lan moo ko bëgg lool li nga xam ne mooy football bi. ah football dafa nekk sport boo xamante ni dañ ko bëgg depuis ba ñuy nekk xale mu nekk loo xamante ni même suñu amee luñ metti sax buñ duggee terrain dañ koy fàtte ndax sport boo xamante dalay fàttaloo lépp loo xamante ni naqari na la wala metti na la. ok ñu ñëw si nga xam ne moom mooy milieu professionnel bi yaa ngi koy wax léegi sa biir wax jaar nga CNEPS jaar nga génération foot tey jii euh, euh, noonu comment s'est passé li nga xam ne moom mooy sa adhésion fi nga xam ne moom mooy euh, ligue sénégalaise professionnelle bi. ah championnat bu am niveau la am na intensité ba pare am na jeu ay joueurs yu am qualité ñoo fi nekk parce que boo dee xool championnat bi joueur fu fi génn bu demee Europe day day imposé wu may wan ni niveau niveau qualité bi championnat bi am. Mhm. exactement yaa ngi ñëw fi nga xam ni moom mooy euh, nga nekk euh, défenseur nga xam ni moom mooy u donc jël li nga xam ni moom mooy CAN U20 bi tey jii euh, nan la sa adhésion nan nga nan la nan nga gisee li nga xam ni moom mooy équipe bi seen taxawaay ak li nga xam ni moom mooy parcours bi nga xam ni moom lañ def. waaw tout d'abord dañuy remercier suñu coach remercier staff bi ak waa fédération ci. taxaw biñ ñu taxaw manqué wuñu dara bi ñuy dem ci compétition bi ba nii ñibbisee waaw mention spéciale ci fédération bi ak staff Séné fédération sénégalaise de football waaw affaire bi moom nekkul woon lu yoom parce que Coupe d'Afrique ku xam Coupe d'Afrique xam ni maire équipe yi ñoo fay tase ñu mel ni ay Nigéria Égypte Tunisie ay équipe yu mag ñoo fa tase woon yàlla def tey jii ñu dem fa gagné équipe yooyu yëpp indi ndam li fii Sénégal amuñu lu dul contentement daal. donc yaa ngi koy sulu souligner ki nga xam ne mooy sa coach Malick Daaf moom ñu ngi koy saluer de passage mu def liggéey bu am importance euh, tey ji euh, sa li nga xam ne mooy sélection équipe nationale tey ji fan la jaaree. waaw mën naa ne GF lañu nekkoon di jouer championnat après xam naa parce que moom ñu ngi moom coach boo xamante ni day suivre championnat bi du jël joueur boo xamante seetaanu la parce que moom mën naa ne. boo bokk na ci coach yoo xamante ni dañuy toog dañuy suivre championnat bi match par match da koy seetaan du bàyyi benn match moom xam naa noonu la def ci ñëw suñu match yi di seetaan même bu mënul ñëw sax dina yóbbante ay ndaw pour ñu xoolal ko joueurs yi affaire yooyu donc pour gis ni euh, confiance bu mu placé ci yow xam nga tu as quasiment les rencontres yi nga xam ne moom mooy euh, match U20 yi doon li nga xam ne mooy toutes les indiscutables ci équipe bi tey confiance boobu noonu tey ji nan la demee sa diggante ak coach bi. ah coach bi moom naa ne moom sama papa parce que maak moom dafa may daf may wax lu bëri dañu may woo di ma conseiller di ma wax di afal lii jaaral nii maak moom ñu am benn entente boo xamante ni mën naa ni man mii sa affaire daf ma jëlee kaw quoi moo tax it dañ doon jouer pour moom di rey suñu bopp ci terrain pour moom ndax sacrifice yi muy def pour ñun. sa relation ak euh, yi nga xam ne moom mooy joueur bi notamment ci capitaine bi Samba Diallo te seen relation ak yeneen joueurs yi aussi comme ça se passe de la tanière. ah relation bu rafet parce que mën naa ne équipe bi depuis mois de juin ba tey ñi ngi ñu ngi ensemble parce que ñu ñoo àndoon dem jouer ji tournoi IFOA bi certes am na ñu demoon IFOA bi tey ji dem nekk ñu fa woon ci Coupe d'Afrique bi mais mën naa ni am na ñoo xamante ni même ak ñoom ak coach bi def nañ plus de trois ans ci ci ci petite catégorie bi am na ñoo xam moo leen yoroon U17 bi am ñoo xam ñoo nekk nekkandoo centre ñii ñoo bokk club vie bi daal nekkoon na équipe bu boo xamante ni ñëpp dañ doon vivre même ñu ñëpp benn lañu woon amul xiiro amul ŋaayoo amul ay xuloo amul yi parce que dund bi moo neexoon foofu quoi. tey ngeen wàcc li nga xam ne moom mooy coupe du monde tey jii lan mooy objectif bi objectif bu Souleymane ba Basse ak li nga xam ne mooy objectif bi équipe national bu Sénégal U20 bi ci coupe du monde boobu. ah objectif moom fexe continuer waat dem liggéey parce que instant yi nii jour moom warul toog rek di xaar instant yi dañuy continuer nekk suñuy entraînement waajal coupe du monde bi dellu suñu club entraîné préparé euh, yeneen match championnat yi di ñëw après coupe du monde bi ñu fexe ñëw dem di bokk ci dernier carré yi incha allah rabi. boo amee tey ji moo booy wax li nga xam ne mooy coach yi la di la formé donc ñoo ko si nawetaan nga jaar jaar si championnat professionnel tey jii boo amee moo booy lancé yi nga xam ne mooy coach yi nga xam ne jot nañoo participer sa formation tey loo leen di wax. waaw ah, di leen remercier rek ci mel ni Mbaye Gaucher di leen remercier rek parce que gis nañ conseils yi ñu doon jox yëpp tey jii mën naa ne quatre-vingt-dix pour cent loolu noonu tey jii moo indi lii waaw jour moom leen rek la am déggal ay questions luñ ko am mu def luñ ko tereloo mu bàyyi waaw amuñu seen fay daal ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier ñëpp dirigeant SNEIPS coach même président Ngalam Mbaye Diène ñoom Boga Xaadim ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier. tamit kii. Maurice Maurice Diaw. donc bu personnel euh, tey jii Souleymane Basse tey jii lan lay doon. ah liggéey rek ba yàlla defal ñu jàmm rek bañ décroché contrat incha allah rabi. donc Souleymane Basse am na lu ko metti si li nga xam ni moom mooy football bi muy def nii ak lu ko ci neex tey jii moo boob noonu moo de la fin nga waxaale ko en même temps. non saa moom amaguma ci lu ma ci metti quoi. mais loo si neex. waaw bëri na moom. Mhm. Mhm. ok tey ñu ñëw ci mot de la fin bi la ngay wax di nga xam ne moom mooy accueil bi la li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, waa Thialy réservel ak aussi tamit xarit yi fi nekk ak ñëpp depuis yendu fi dépp boobu ba léegi tey jii la nga leen wax. ah di leen di leen ñaanal rek di leen remercier waa population cees bi dëgg la maa ngi dégg écho yi esot yeeg yëpp ñoo xamante ne dañ lay esot te xamuñu leen maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp di leen wax ñun seen doom lañ cees lañ dëkk Thiès lañ am Thiès lañuy tiitaroo. lépp lu ñu am Cees ñu ko gënal di wax ñu ñaanal ñu rek di ñëw incha allah rabi yàlla defal ñu ndam ñu indiwaat fee yeneen i ndam-ndam di kontaan ci waa Thialy Jaxaaw Petit Thialy ñëpp ñu nekk ci ci koñ bi fii yëpp samay xarit ñu may àndal ñëpp. ok mbokk yi gis ngeen euh, lii lañ leen indiloon ñu ngi fii nga xam ne moom Thialy ànd ki nga xam ne mooy international Sénégal u donc vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations U20 euh, s'est déroulée euh, en, Égypte vous avez vu donc l'ambiance qui s'est tenue ici donc les gens ont commémoré ce jour cette journée rendu hommage ñi nga xam ni moom mooy décès yi fii jot a am ak yooyu yëpp donc euh, c'était votre ami votre frère Sangué Diop donc ici à Thialy pour le reportage qu'on a fait sur Souleymane en termine aussi sans remercier nga xam ne mooy sama caméraman Maladi aussi mu ngi leen remercier remercier bu baax a baax a baax donc nii la RTT TV mooy seen bu nga xam ne day euh, jox li nga xam ne mooy téléspectateur lépp lu ñu bëgg donc di ñaanal Souleymane Bass ak yàlla yokk aussi li bëgg ci àddunaam yàlla defal ko ok mbokk téléspectateur kon on se donne dig daje ci yeneen euh, émission donc ak yeneen interview avec votre ami votre frère Sangue Diop